aussi mbégte ni ñu koy amee saa su nekk dalal Djibril Gningue yéen a ngi koy bëgg a miin expert électoral la bokk itam ci ñu sos euh, GRADEC di kuréel goo xam ni dafay saytu wàllu démocratie mais également wàllu yorin ak ni réew mi doxee kon muy membre ci société civile bu Sénégal ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci wuy si beeg euh, yitte ji sëñ bi ñu ngi bàyyi la nga nuyu ak ñi ñuy seetaan. oui Fatou Thiam Ngom maa ngi lay euh, fay di la nuyu bu baax. di gërëm di la sant ci invitation bi. di la wax ne am na mbégte te dellusi fii ci Télé Sénégal. Mm-hmm. di nuyu sa auditeurs yi ak sa téléspectateurs yi. Mm-hmm. jërëjëf euh, ñu ngi lay fay yow itam di la gërëmati ci euh, disponibilité bi surtout alors waxtaan bi war a tënku ci tolluwaayu Sénégal xam ngeen ne ñu ngi jëm ci euh, campagne électorale doog a la première semaine wala nekk ci yoonu boucler la première semaine ndax campagne bee ngi dooroon dimanche ba la ñu weesu kon ëllëg lay mat benn ayubés waaye itam fitna gi ci jolli danañu ko waxtaanee ak société civile bi ban taxawaay la ci am mais surtout élection lañu ci am ak yan matukaay lañu jàpp ne war nañ ko ci jël démocratie également dina bokk ci li ñuy waxtaanee waaye ngir tàmbali euh, Jibril ñi dañuy waxtaanee euh, campagne électorale bi ak fitna gi ci yeewu benn ayubés rek gis nañu ci ay scène de violence yoo xam ne yu jéggi dayoo la yow ban gis-gis nga am ci loolu ak lan nga jàpp ne moo ko sabab dëgg-dëgg mm-hmm. euh, jërëjëf question bi am na solo mm. Euh, effectivement campagne électorale bi ubbi na depuis le vingt 26 à minuit donc le vingt Mm -hmm. le 27 octobre boobaak léegi euh, def naa ne bu amee benn ay bés aussi xëy na ci lay war a yem. Mhm. mais gis nañu effectivement que am na euh, euh fitna yu bëri vraiment yu yu jóg. Mhm. Ah, euh, ba nga xam ne am nañu ay gaañante am na. bon ay yàqu-yàqu yu ci yu ci jot a am alors loolu nag euh, ni ñu ko mën a jàngatee mooy que euh, dafa am crise politique crise politique boobu mën nañu wax ne mi ngi tàmbali deux mille vingt et un mm-hmm. deux mille vingt et un ba vingt quatre alors boo ko seetee ci diir boobu lu bari xew na fi. Mhm. ci ay fitna ci ay jàmmarlo ci ay nit ñu gaañu. Mhm. ay arrestation ay emprisonnement ñu ci ñàkk seen liggéey. Mhm. ñi ñàkk seen njàng. ñi am ci laago alors boobaak léegi nag malgré. élection yi présidentielle yi ñu weesu te ñépp tiitoon ci te population sénégalaise yi fexe ba ñu génn ci ak jàmm parce que mën naa wax ni surtout bu loolu amee ñoom surtout la ñu war a sargal ci loolu ndax état bi fi nekkoon gisoon nañu taxawaayam waaw mais malgré succès boobu taxul ñu génn ci situation crise politique boobu donc mën nañ wax ne lii nga xam ni moo nekk di xewoon la moo tax élection yii ñuy dëgmal dafa am solo trop dafa am ay enjeu bokk na ci enjeu yi justement nu ñuy génnee ñuy Sénégal di génne ci situation boobu mm-hmm. ndax autorités yu bees yi bu ñu génnewul réew mi ci situation boobu du ñu mën a liggéey dara. nan lañ ko ci mën a génne. ah pour mën ci génn nag. Euh, comme ni ma la ko waxee woon léegi autorité ñoo ci jiitu waaye population am na ci wàll société civile am na ci wàll mhm. acteur politique yi am nañ ci wàll ku ci nekk da nga war a bay sawar ci loolu mhm. pour ñu mën a réew mi mën a génn ci situation bi am stabilité alors pour autorité yi moom euh, li ñu war a def d'abord mooy que ci campagne bi ñu nekk mhm. ñu jël matuwaay yépp pour que campagne bi mën a déroulé wu ci jàmm ak salaam cortège yépp cortège yépp liste yépp ñu yóbbu fa karange goo xam ne euh, violence du mën a am wala du ma ne du am sax waaye bu amee dana néew lool te danañ ko gaaw a maîtriser li ngay wax nii daa mel ni amagul waaw dafa mel ni amagul mais ministère de l'intérieur jël euh, jëloon na engagement am na suñu ay ndaw yu ko rencontré woon ba waxtaan ak moom ci loolu ba wax ko ci euh, suñu suñu yi ba mu ne woon dina jël ay matuwaayam ci ci ci wàllu boobu hmm. defe naa loolu war na ko jël ba nga xam ne campagne bi li ci des alors te nit ñi am ci njàqare lool te tiit ci hmm. danañ ko mën a jàll ci jàmm hmm. ba nga xam ne euh, loolu mooy benn ñaareel bi mooy vote bi ci boppam aussi nekk ñu def ko ci jàmm mu am ci conditions yoo xam ne ay conditions de transparence et d'intégrité waaw ba nga xam ne résultat yi ci génn kenn du ko laam-laamee voilà d'accord alors fitna gi am ci campagne législative anticipée yi bu ñu ko méngalee ak euh, élection yi weesu est-ce que bu mel nii ci diir bu gàttee ni mm-hmm. mës ngeen ko euh, constaté. non non